li ko ni ko maire waxee léegi boo demee Kër Ñang boo demee Dar Rahman ren ubbi nañu puf di imaginer imaginer tey jii bu puf euh, kër kab bu fi nekkutoon muy bu bees bi kon tey situation bi naka lay naka lay demee donc forcément am na euh, am impact mais fi ñu jógee ak fi ñu jëm moo xaw a soree donc gab bi ñu war a combler moo jéggi dayoo ndax ni Touba toll Touba muy dëkk boo xam ne loo ko xaymal bala xayma yee pare weesu na ko ndax nit ñi dañuy daw rek di ñëw di wut si sëriñ bi kon ni mu toll la mais li nga xam ne chiffre yi nga lim noonu tubaab bi génne ko li ñu fi def ci investissement boo jëlee wàllu assainissement bi de 1960 à 2012 lu ñu fi def de a à 2023 moo moo ko ëpp junni yoon ak juróom-ñett c'est ça la réalité des chiffres kon am na am na impact liggéey na fi liggéey boo xam ne liggéey bu wér la mais malheureusement ci wàllu assainissement laay wax encore une fois fekk woon loo xamante ne bii lu am solo la li fi nekkoon yoonu murid moo ko defaloon boppam mu di sunu maam Serigne Saliou Mbacké Abdoulaye Wade commencé woon na di def ak Henan Chine yàggut mu sunu borom jeexal ak ayam mu dem kii nag bi mu dikkee nag ci la accéléré maintenant donc les réalisations yi nga xam ne mi ngi koy def am na impact mais fi ñu jóge ak fa ñu jëm moo sore li ëpp solo nag léegi moom li mu war a def lépp def na ko ngir jëm yàlla ak sëriñ bi li am solo nag mooy kii ñëw ñu xool li mu wax ni deux cent milliards la ñu soxla pour Touba loolu amul xaar amul façage deux cent milliards amul xaar amul façage buñ ci génnee cinquante milliards kon fi ñu toll nii des na un gap de cent cinquante milliards bu ñu ci war a def loolu nag la ñu war a xool naka lañ ko war a génnee def ko ci dëkk bi problème assainissement jeex parce que aussi bu ñu waxantee li nga xam ne mooy li nekk mooy état loolu tëwu ko mhm. te biir na ma ne bu sëñ waxee ak ñoom ne leen lii mooy sama yitte mhm. defal leen ma ko ci moom xam naa ne fu ñu ko mën a jëlee dana ko ci def moo tax encore une fois loolu man daal foofu laay foofu lay waxee ñu dem ci perspective yi mhm. ndax itam situation bi buñ ko bëggee dund déwén dundaat ko ñaari at ak ci ñetti at ci kanam ci wax set la ñuy magal il faut magal gi dem ba mois de juillet pour génn wax set et encore il faut mu dem mois de pour génn nawet donc jàppal ne fii ba juróomi at ci nawet la ñuy màggal et loolu toujours ci ay risques la ñuy fekk te dem maa ngi waxtaan ak euh, médecin chef bi mu ne ma li nga xam ne moo gën a yéeme. Mhm. mooy bu nawet bi euh, bu màggal gi jàllee dëkk bépp dañuy tëdd feebar. ndax ndox mi moo koy indi. ak yooyu waaw. non du du yooyu dong sax am na sax yeneen feebar yoo xamante ne bii dafa compliqué sax ba man daanaka lam na wax mënu xam bu baax. Mhm. mais nee na ma daal bu bu màggal gi jàllee ñu bari dañuy feebar ndax ndox mi. Mhm. kon li am solo moo di kii li mu waroon def def na ko. Mhm. am na impact ci dëkk bi ndax bu fi nekkutoon tey jii mara d'Italie. bari na fu daan taa gis nga fi nga jàkkaarloo nii rek. sëñ laat mi xam na ko nawet kenn daaw fi jaar nawet bi yëpp. bari na ci dëkk foo xam daan taa boo demal coté ñaari étage hmm. demal ci côté marché bi bari na foo xam daan taa ñi xam tubaat dëgg xam nañ eh, xam nañ li may wax nii tey jii foofu foofu dem taawatut tey ji aussi bu tawee am na foo xam ne ndox ma dafay nekk mais boo toogee ñetti waxtu ñeenti waxtu juróom benni waxtu boo dikkee fekk ndox mi dem buntu mairie gis nga ndox mi ni mu daan mel pratiquement fa la ndox mi daan nawet tey bu tawee ak dispositif yi nga xam ñoom jël nañ ko bu tawee tey jii dès le lendemain da ngay ñëw circuler sur les deux voies hmm, hmm. kon quand am nañ effort euh, man nag nit ki bu dee góorgóorlu di def lu baax euh, sama sama xalaat moo di dañ ko war a wax waaw góor bu waree dolli nag ñu ne ko na nga dolli waaye waaw góor ji moom mënut a ñàkk ndax mi ngi def lu baax. waaw di fàttali ne ñi ni fal aussi dañ leen a fal ngir ñu liggéey ah. absolument mais aussi mais aussi bu ñu fàtte ne dañ leen a far ngir ñu liggéey Sénégal gépp mhm. kon nag bu ñu beralee Touba loxo sëriñ bi moo tax loolu aussi ñun waa Touba nañ ko xam ne noonu mhm. waaw ñu fàttali ni kon ñu ngi koy xaar fii ci Touba ëllëg moom président de la République